wajxal kalaami raasidan wa mursidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi ni bàyyi xel fon mën nekk ci àdduna bi moo xam ñi nekk ci réew mi wala ñi nekk bitim réew tey bàyyi seen chaîne bu am solo bi muy la grand secret a wolof ñoo ngi leen di waxati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bi ñu santatee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi ndokkeel ak jaajëfal mboole mbokk yi ne bàyyi xel ak mën a ne di sant ak jaajëfal mbokk yi nga xam ne dañuy faral di woo di sant ak ñi nga xam ne dañuy faral di yónnee ay message ci whatsapp di sant ñu nit ñi ngi leen di sant bu baax a baax a baax di gërëm mboolem mbokk yi topp suñuy jotaay bu baax mbokk yi tey dañ leen fas yéene nil benn secret boo xam ne secret bu doy waar la secret bu yéeme la képp koo xam ne bëgg nga wërsëg bu yaatu talew fexeel ba def secret bi gaaw na ci lool wallahi lancim muy layastaxlifanahum yàgg nañ kaa indi ci sunuy vidéo di wax ne njëriñu layastaxlifanahum ku ko xamoon du jarati ngay wuti beneen secret mën nga cee yem sa yaajo di faju layastaxlifanahum day benn baat boo xam ne la yàlla yu baree baree baree bëri layastaxlifanahum day benn baat boo xam ne lamboo na njëriñ yu bare baree baree baree bëri la yastaxlifanahum bu fekkee ne da nga bëgg nopp gaaw na ci torop bu fekkee ne da bëgg bayre gaaw na ci torop bu fekkee ne da bëgg wërsëg moom gaaw na ci lool lool lool lool tey dina am lenn lu néew ci ay njariñam ci wàllu wërsëg loo xam ne dinañ ko indi te képp koo xam ne jarbu ko ko def ko def nga ko di nga gis-gisin wu leer naññi te dafa gaaw man loolu ma gën a neex ci la yastaxlifunahu mooy ay mbiram dafa gaaw amul sax ay xaaral ma ñëw wala dem ma ma dem te ñëw ak dafa gaaw dafa efficace bala ñuy gën a sori ci secret bi rek dañuy defati ab fàttali comme niñ koy faral di defe ci suñu yeneen vidéo di la wax yow mi gan ci paas bi bu fekkee ne abonné goo ci seen bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné seen vidéo bi partage ko mu gën a yaatu ndax mboolem vidéo yi ñu dugal ci seen bi yëpp ay vidéo njariñ la te njëriñ moom nu mu gën a yaatoo rek ci la gën a wax yow mi nga xam ne danga nga bëgg def lu seet wala nga bëgg def lu listixaar dañuy def seet à distance en même temps dañuy def tamit listixaar à distance moo xam nga nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew te bëgg ku la defal benn ci ñaari yi ñu ci numéro bi muy 77 684 28 28 77 684 28 28 foo man di nekk boo ñu contacté dina la defal li si xar gu leer nañ ñi képp timit koo xam ne da nga bëgg a xam sa biddiw wala nga bëgg a xam sa sarax wala nga bëgg a xam sa rawxaan boo ñu contacté incha allah rabbi dinañ la ko wax waxin wu leer nañ ñi mbokk yi nga xam ne dañuy yittewoo garab yi kàttan yi muy garab yi musxam yi ñu di leen di wax ne garab yi disponible na jamono jii ñuy wax ak yéen képp koo xam ne yittewoo nga ko rek mën nga ñu garab gi nag garab gu bare ay njariñ la fi mu ne ñu bare bare xam nañ ko bu baax garab la goo xam ne dafay yokk man yu góor ndax góor ñëpp xam na ne man yoom dafay yokk dafay wàññiku garab la tamit goo xam ne dafay dundal walax njaanu góor walax njaanu góor ñëpp xam na ne day feebul garab la tamit goo xam ne kàttan genn garab mënu ko ci moom boo ko jëlee moom kàttan gu wér a wér ngay am te lépp nag moom lu naturel la amul lenn loo xam ne ngaañ yu si nekk képp koo xam ne yittewoo nga ko rek mën nga ñu contacter ci numéro bi muy 77 684 28 28 kon mbokk yi dañuy dikk yen ci baatu la yastaxlifannahum gi waaye njëkk ñuy ñëw ci dëgg-dëgg secret dañ lay toojal lu neew a neew ci la lay la yastaxlifanahum boo ko xamante mi ngi lay jox mil cinq cent quarante cinq mille cinq cent quarante cinq day lu doyoo doy waar day lu doyoo doyoo waar am na benn talsam boo xamante ni talsam bu doy waar la jàpp na turu yàlla yu yéeme talta meññ kaax yaa xas kakan kaka yaa iilu kaka toosin bépp ndaw boo xam ne da nga koy werdu sag maas kenn du la ci raw ñëpp nag jamee wo doodu boo ko xamante mi ngi lay jox cent trois nga multiplié ko par quinze mi ngi lay jox mille cinq cent quarante cinq la yastaxlifannahum ngi lay jox mille cinq cent quarante cinq te ji yàlla bu dogaloon nga jël ay kayit natt ko ba mu tolloog dix mille nga wuti lu ba lim bu baree bari yaa xam loo ci wut rek nu mu toll kayit wu si nekk nga bind ci la yastaxlifanahum boo noppee nga lakk ko maanaam da taal kayit yi teg ko def ko ci ab bool fexe ba du naaw nga lakk ko après ba yëf yi lool nekk dóom dóom boobu ngay def saafara maanaam wut ab biteel nga def ko ci def ko saafara di ko laal guddi gi di ko sangoo. boo noppee la yastaxlifana moom nga koy werdu sept mil sept cent soixante-dix-sept akbar laa ilaha illallah lu gën a gaaw lii ci wërsëg gisuma ko maanaam boo koy werdu wërsëg dina la dikki la nu la wax nu ne dina ko dikk waaw dina dikk ba yéem la mën nañ ci wax njëriñ yu bare bare bari la yastaxlifana moom waaye bii ma wax daal fexeel ba wut dix mille yu bari dix mille kayit wu weex nga dagg ko ba mu toll diibin nga wut ci lu bari bu si nekk nga bind ci lay sax la fa mu binde ko nii nag boo nga wut benn booli bu mag nga def ci kayit yi yëpp taal ko bu takkee ba jeex doom boobu muy doon doom boobu ngay def saafara guddi gu jot nga fexe ba sangu ci saafara si wérdu layes taxli fanam baatu layes taxli fanam 7777 nga xool doo ko def une semaine mukk te say mbir sotti kuut xam naa secret bi nañ amoon yéen tey partage ko ak yéen di la wax yow mi gan ci pass bi boo ba kun nga abonné mi bëgg ku la defal li si xaar mën nga ñu contacter ci numéro bii kon mbokk yi xam naa fii la ñuy yem ak yéen ba ëllëg ñu dikkaat ak yéen ci seen beneen njariñ wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu